la responsabilité sociétale d'entreprise ak des conventions qu'ils peuvent signer jàppale yenn secteur d'activité parce que làmb aussi dafa nekk koo xam ne benn secteur boo xam ne nii dafa am c'est c'est un ministère c'est-à-dire il a a une tutelle hybride dafa am tutelle hybride ndax tey soo xoolee ministère de la culture mhm. day day day bokk ci làmb ministère des tourisme ah, et de la jeunesse donc c'est c'est quatre ministères mhm. qui ont la main dans la lutte qui un sport de chez boo xam ne ni facteur de de de de développement de développement la aussi. Mm-hmm. donc loolu mënuñu ko bàyyi en rade. Mm-hmm. dinañ jël la musique euh, voilà l'art et tout ce qui les cultures urbaines. c'est ça mm-hmm. sans le savoir. bi leen Souleye dafa dafa kii dafa violer euh, le principe de solidarité bi bu la bu la gouvernement bu wootee. parce que bu waxee ne euh, du ñu parrainer wala du ñu jël benn parrainage. dina vexer un peu le ministère de la culture. parce que ñoom seen domaine la. te loolu am na empiètement bu mu def Euh, collégial. ñu am solidarité entre ñoom. donc moom il n'était pas approprié mu wax loolu moom. Mm-hmm. c'était pas pour lui mu wax. d'accord d'accord loolu la ngeen ciy dénoncé. voilà ma leen sant bu baax baax ci ponk bi alors ñu engagé directement suñu deuxième ponk bi jëm ci. l'affaire des passeports diplomatiques di démb ak tey mu cité bu baax a baax actualité politique bu Sénégal gis nañ que ni moom président Sall bàyyi woon na fi benn décret bu mu signé woon laataa muy dem ñi nga xam ne mooy ay ministres yi ñu fi nekkoon continuer di utiliser les passeports dañ koo daal di ñëw gàntal ko xam ne que ni dakkal nañ passeport diplomatique ak ko utiliser dañoo war a xam yow yaay kat ak ndax intérêt Sénégal moo tax di jóg ak lu ni mel d'abord maxu ko coow leeg xaalis bi di ci duggoon lépp tey gouvernement bi jël ci ay mesures nan nga gisee décision yi nga xam ne jël nañ ko jëmale ci passeport yi. xam nga il faut que affaire on parle de passeport diplomatique lan mooy. Hmm. passeport diplomatique ñaar lan lay jariñ ak kan moo ko war a jariñoo. Hmm. passeport diplomatique li muy jariñ mooy parce que y a un passeport. Hmm. le nom passeport y a diplomatique. maanaam c'est les représentants d'un État. ñoom ñoo ko ñoom ñoo war a am loolu mm-hmm. représentant d'état mm-hmm. moo war a am mm-hmm. passeport diplomatique maanaam tey jii ñi nga xam ne dañuy liggéey ci ambassade ambassade yi sénégalais yi nga xam ne dañu liggéey ci ambassade euh, France kii waree na ñooñu dañu war a am ambassade dañu war a am euh, passeport diplomatique ministre yi fii dañu war a am passeport diplomatique peut que ak ay autorité ay représentants yoo xamante ni ils représentent tey jii man je d'accord tey le xalif général des Mourides le xalif général des Tidianes dañoo war a am passeport diplomatique. parce que li ñuy def il représente toute une nation. bu ñuy dem. ñooñu seen voyage dañ ko war a kii mais xam nga passeport diplomatique. du ñëpp ñoo ko war a bénéficier. Macky Sall a fait une chose mais léegi tey jii Macky Sall li mu def décret bi mu def cinq jours avant muy dem man xam nga loolu na la tudd. c' un gangstérisme d' état. c' a fait un gangstérisme d' état affaire gangster c'est un gangstérisme présidentiel nga signé ay décret yoo xam ne yow yaa ngi dem mais sa yoon nekku ci dafa am loo xam ne gis nga man fii laa taxaw ma dénoncé ko ma ne ko Macky Sall man je suis ci média laa nekk mais dama ne Macky Sall 40 milliards yooyu du ma moo ko waroon baale xam nga ki ko waroon baale mm-hmm. parce que Macky Sall yoonam nekk tey jii Macky Sall à partir de mois bi di ñëw mm-hmm. buñ fayul buñ fayul salaire yoonam nekku ci ah yoonam nekkul ci absolument non non parce que mm, loo léegi à partir de maintenant. Mm-hmm. ci ndodd Diomaye Bassirou la la la wékku. moom moo war a gérer loolu léegi mas bari xam nga rek boroom kër ga nga xamante ni mooy joxe dépense ci kër ga mooy fay courant moo waa moo mooy fay diw mooy fay lii mais su amee lu dugg ci kër gi moom moo am droit ne kooku may naa la ko wala kii kër gi génnee na dara wala tool yi génnee na dara man lii may naa ko wala kii mais Macky jël ci boppam ci wàllu boppam ci kilifteefu boppam ne baale na loolu te li mu def noonu Macky Sall à la dernière semaine Macky Sall faisait du sabotage du sabotage non du sabotage la def. Mm-hmm. décret bi. Mm-hmm. imaginez yow. Mm-hmm. tu te lèves un jour. yaa ngi dem. mais sa yoon nekkatu ci. nee na ministre yi ancien ministre yi. leur conjoint. jël décret boo xam ne décret bu bees ñooñu ñëpp mu jox leen léegi passeport diplomatique loolu amul ci benn dëkk. passeport diplomatique c'est pour une fonction bu fonction bi jeexee da nga ko war a delloo. dëgg la yaa ngi dégg. ministres yooyu ñëpp ba fonction bi non man ay man jomaay warul yam rek ci annulé décret boobu gis nga bëri na décret yoo xamante ni Macky Sall ko jëloon ñu téye ko ci suuf denc ko ci yooyu yëpp dañ ko war a annulé mais passeport yi anam bi nga ko defee est-ce beneen politique bu gën a approprié kilifa di dem ba aéroport nga gàllankoor ko ni ko mënoo dem dépasse ko mu ñibbi est defoon kan te ni mu def sa bopp moo gën a bon li li Macky Sall defoon moo gën a bon hmm. parce que Abdoulaye Wade bàyyiwul bay dem signé ay décret pour joxe ak ay passeport

Mhm. loolu loolu loolu c'est parce que tamit aussi. religieux laa bëgg a wax du moins. du mhm. mhm. lu ñu dee passeport diplomatique. ak les joueurs aussi la Coupe d'Afrique joxoon na leen ay passeport. non sax ñoom dañ dañ ko kaasoon te mais joueur que dañ ko war nañ xoolaat est-ce que ñoom war nañ ci am. loolu waxtaan la que parce que boo joxee joueur bi da ngay joxe tous les internationaux. et Sénégal li mu am ci ay internationaux handball volleyball mm. baseball mm. ak lutteurs yi nga xam ne dañuy représenté mm. parce que waroo jox football bi rek bàyyi ñee ça aussi c'est c'est un autre problème ah dëgg alors Mourou Mbacké maxu moom nee ñuy dañoo war ba ci fali tout ça est-ce jàpp nga ni comme gouvernement bi ni ñu waxee dégg seen ponk parce que man li ma liir mooy képp koo xam ne doxoo doxoo ci intérêt état maanaam état rek moo la tax a jóg waroo am passeport diplomatique loolu bu ñu bi ak kan nga jàpp moo am yelleef ak xam nga nit boo yàggee ci désorganisation. Mhm. yàgg ci euh, maanaam ñàkk organisation. Mhm. ñàkk sérieux. Mhm. dangay dem ba dafay sax ba nga jàpp ne lu sérieux li loolu moo sérieux wu. mais on parle de quoi là. passeport, passeport diplomatique. Absolument. Il y a combien de types de passeport au Sénégal? Deux, je pense, voilà. de service. ak passeport ordinaire. donc c'est trois voilà. passeport de service. Uh-huh. ak passeport diplomatique bokkul. Mm-hmm. il a bien dit passeport diplomatique. Mm-hmm. la diplomatie c'est quoi c'est l'affaire des affaires c'est le rôle de l'affaire des affaires étrangères. tey soo xoolee dans l'autre protocolaire. Mm-hmm. du gouvernement sénégalais. le ministère des affaires étrangères. vient en première position après le premier ministre. dëgg la parce que mbirum diplomatie la ñuy wax. absolument mooy kii buñ ko gisee muy dox nit la mais il incarne le Sénégal. Mm-hmm. à l'étranger kooku institution la war a doon. Mm-hmm. tey ministère de sports sportif yi de haut niveau yi dem mais passeport de service day na. absolument service parce qu'il va il rend il rend service en un état. Donc, mais ñii ils ñii ils vont ils vont rendre un service ils vont ils vont pour le compte du Sénégal. Mm-hmm. mais rendre un service que l'État leur a donné demandé de rendre pour le peuple sénégalais. Mm-hmm. mais ñee ils sont dans une fonction boo xam ne ni elle est nominative et elle est représentative du Sénégal à l' à l'extérieur. Mmh. est-ce que comprends nga li ma passeport diplomatique. Mm-hmm. képp koo xam ne ni ministre nga yu demee noonu ci dans la diplomatie mën nga ko am. aujourd'hui xalif yi mu wax ak religieux yi wax. mais les confrères au mais ils ont un rôle diplomatique mais extraordinaire. tey tey kay euh, xam naa xëy na fekkee woo ko mais problème mu Mauritanie bi diggante Mauritanie ak Sénégal. mais li taxoon affaire bi soriwul. Mhm. parce que chérif yi nekk Mauritanie. Mhm. seeni taalibe ñoo nekk Sénégal. Mhm. la confrérie xaadiriya ñoo ci jàpp. ñoo ko dox. tey diggante Maroc ak Sénégal. Tijaaniya bi ñu ngi dox. tey soo xoolee. Baye mm. diggante Nigéria. Mm. ak Côte d'Ivoire. Mm. Euh, euh, Côte d'Ivoire Nigéria euh, Burkina Ghana. ba Soudan. waaw mais loolu yëpp am na ku ñuy xoole am na ku ñuy ruse. aujourd'hui soo xoolee sëñ Mourtada sëñ Mourtada. mu li mu def ci ay kër résidence Cheikhul Khadim ci àdduna bi. yooyu yëpp mais c'est des de la c'est de la diplomatie. dëgg la mais ñooñu ils sont là pour qui pour le Sénégal pour la ñuy xoolal Sénégal pour la mm-hmm. war nañu am passeport diplomatique. Mm-hmm. ak ñi nga xam ne mm-hmm. dañoo nekk ci seen seen environnement immédiat. nga xam ne xale bi moo leen di désigné. nga xam ne du ay ay ay homme d'affaires wala des des des des lobbyistes. yoo xam ne dañu ñëw bëgg a bëgg a bëgg a raaxaaloo ci mbir mi. gis nga mbir mi mën nañ ko lijjanti. te du bëri coow. am na loo xam ne soo ko lijjanti doo ko lijjanti mais est-ce que idée bi rek mën nga koo joxe. Mhm. mais na koy lijjanti ak na tojee sa bopp jinax. Mhm. loolu ça ça se fait en bas la diplomatie on dit qu'elle ne se passe sur le toit des maisons. Mhm. mais à l'intérieur plutôt. donc passeport de service. war nañ ko mën a jox ñenn ñi. nga xam ni ñoom. ay ministères rek yu demee noonu. parce que mënoo nekk sa agent ministériel nga naan da am passeport diplomatique loo koy dee. ci un agent. mën nga dem retraite passeport ordinaire nag ku bëgg a tukk mën nga ko tukkee mën ngaa nekk chef d' entreprise. yor mhm. sa entreprise ñu xam la nga nga nga am sa NINEA tu es reconnu. Mhm. Euh, voilà tu le code des impôts tout nga nga nekk koo xam ne tu as formalisé ton entreprise. Mhm. soo bëggee tukk en tant qu'homme d'affaires mën na la may comme mën na la bañ a may. mais passeport de service. état les services qui sont rattachés à l' état démembrement de l' état. war nañ ko mën a am. bis nekk fii nga yow. bis boo ko fi bàyyee. mu dem. Mm-hmm. day bàyyi day yóbbaale caméra yi. déet. <laughs> kon lu toll liggéeyati. na fi bàyyi su la doon kaa joxoon oto wala benn moto doo ko jëlaat. Mm-hmm. immobilisation la tudd. Mm-hmm. man miy def wàllu wàllu wàllu logistique ki xam na ci dara. moom nii fañ bokkoon di liggéey maag moom ba mu fay jógee. ordinateur ba mu yoroon. Ah, portable ak yi ak yow yi yëpp dama ko delloo. mais est-ce la manière la manière bi ñu koy defee c'est c'est bien car aéroport intercepté comme ni ko waxee am na xalif généraux yoo xam ne ak kilifa a mm-hmm. dëpp ko wala mënut a ay tension wala lu demel ci biir société bi ñu nekk di. mais est kilifa war naa war naa mais kilifa yi sax non non mais. man na war naa xam nga dañ ne baadoo la. Mm-hmm. moom rek mooy gis toroxalam. Mm-hmm. dëgmal ko. te du dëpp nit. su fekkente ne. leer na li ñu la wax wax nañ ko ci pénc nga dégg ko. te gàcce mën na la cee fekk. da ngay dem leerlu ji ba mu leer sa bopp. soo koy tukkee nga tukkee ko suñ la ko mayee. soo ko xam tukkee woo ko nga bañ a def lu la gàcce di fekk. te kaw ka ko def moom. tey jii ka nga xam ne ni moom elle se réclame de lui. muy le professeur Iba Der Thiam ndax nijaay la ci moom. dëgg la man mii di wax la yow muy bàyyi ci man. Mhm. sama c'est ma c'est ma cousine non on se Iba Der Thiam c'est un commis de l'État aujourd'hui il s'est retourné dans sa tombe su déggee ne jarbaatam bu mu yar jàngal ko lan mooy état mu koy mbubboo bi su nekk di ko tudd di di di am fierté di su koy tudd muy def acte yu mel nii. d'ailleurs bu ñu ko contrôlé ba xam ne am na beneen nomba tàkk bu mu dese. Mm. boo xamee ne may na ko. Mm. mu mën ko itti duñ ko delloo passeport. mu dem kon lu fi jar coow li. Mm. du ko fi jar. Ah, Adjim Mergane Kanté tur bi dañ koy wax moo moo moo moo yëkkati coow li dafa dem aéroport yi tukki ñu ñu ñu intercepté ko wuti député la alors mbir mi nan ko gisee coow leeg dañ ko war a nangu fii dañ ko war a delloo kii am habilité kii am ko waaw waaw Adjim Mergane Kanté bon boo xoolee la a elle a atteint son objectif en hmm. quelque sorte hmm. parce que boobu loolu doon loolu doon recherché